seen yow tamit ñu gis par exemple euh, li nga xamante ne moo di coow bu dal Ousmane Sonko ci gis yow. Hmm. mel yow ku ci fës loolu sax. waaw xam nga am benn relation bu bu xaw a particulière wala. Euh, si si si mais xam nga loolu posture la boo xam ne euh, mu ngi mel ni dans les années quatre-vingt-huit Ablaye Wade dafa incarné woon un espoir de changement. lépp lu lu lu nekkoon autour de Ablaye Wade rek dañ ma ci daan dégg dañ ma ci daan gis ba ay waa PDS sax foog ni man PDS la noonu la ay waa Pastef fu mu nekk nii sax foogee ni Pastef la j'ai de bonnes relations avec Ousmane ko parce que dafa incarné benn espoir ba noppi dañu bokk ay gis-gis ci yenn domaine dañoo gëm dañoo gëm ni moom dafa gëm comme man ni Sénégal am na richesse boo xam ni mën na ci sukkandiku pour financer son propre développement son propre budget moom dafa gëm ni Euh, politique de surendettement bi nga xam ne président Macky saal moom la jël contraire bi la ñu war a def pour euh, autonomisation parce que moom boo waxee mu ni la am na ay niche fiscale yoo xam ni mën nañ ci dindi xaalis boo xam ni dina doubler budget bi dina yokk budget bi. Hmm. loolu boo ko dollee ci li nga xam ni moom la ressource naturelle yi di di di di di indi dootoo soxla lebi bitim réew da ngay am. Euh, loo mën a alimenter hmm. ce budget donc loo mën a financer ce développement am nañu ay convergence am nañu ay convergence mhm. programmatique mhm. am nañu ay gis-gis commun ci Sénégal. am nañu ay gis-gis yu waroo. non ay gis-gis yu waroo parce que euh, gisuguma euh, gis-gis bu waro sama diggante ak moom parce que li ñuy jooy fi Sénégal ñaar la problème de démocratie et de liberté ak problème de développement donc ñaari ñaari ñaari jooy yooyu yëpp ñun ñoo ko bokk mhm. te yooyu yëpp saafara yi bokk nañ ci gis-gis parce que liberté ak démocratie. dañ ko war a régler ci dëkk bi euh, euh, relance économique euh, wala redéfinition d'une d'une politique économique. dañ ko war a dañ ko war a mais ñu gis tamit par rapport ak discours Ousmane ñu gis par exemple muy un peu kuy teg baaraamu tuuma li nga xamante ne moom moo di puissance occidentale yi est-ce que ànd nga yow par rapport ak loolu muy wax noonu jëm ci ñu war a jëflanteeg ak suñu ancien colonie di France. waaw lu ma ni puissance occidentale yi damay ni France. Mhm. parce que France quand même mooy nas ay anciennes colonies te loolu vraiment jot na ñun suñu génération ñu gëm suñu bopp suñu génération war suñu jël ay ndigal France président Macky Sall bi ko falee li mu njëkk a def mooy dem camp jal Diop ak camp Wakam camp Wakam bi plutôt ak camp Bel Air bi fekk boobu ab Ablaye Wade récupéré woon na camp yi ci armée française ñu yégal ci drapeau Sénégal président Macky Sall li mu njëkk a def loolu ak mu ma metti ma gis télévision journal télévisé ñu wàccee drapeau Sénégal cérémonie. mooy si camp Diop bi camp Wakam ak bi mm-hmm. nekk Bel mm-hmm. ñuy wàccee drapeau Sénégal cérémonie solennelle pour yéegal drapo France image yooyu da ngeen ko war a set ci archive mm-hmm. mu ngi RTS image yu choquante am na ñu mu ñu ñu ci deful sax attention mais man man daf ma daf ma daf dama ko dund dund bu metti ñu teg ci quelques jours mu ngi doog a falu de mu dem France def def def voyage officiel signé ay accord de defence ñu jox ko quatre-vingts milliards pour mu gérer affaire fonction publique yeeg arriérés de salaire yeeg te xamuñu ci yan base xamuñu accord de défense mu signé ba léegi assemblée gisu ko te ñoom ñoo ñu fi toogal donc euh, France boo gisee euh, ñu ngi jooy jamono yi ndox hmm. ndox ndox bi ñuy naan ndox bi gis nga. gis nga président Macky Sall dem inauguré Kër Momar Sarr 3. Mhm. ay milliards la. milliards yooyu ñun ñoo ko def jëlee ko suñu budget wala ñu leb ko def ko ci pour defar suñu ndox mais exploitation bi euh, euh, seen la benn comme société française moo yore exploitation bi. Mhm. ñun lépp luy infrastructure ñun ñoo koy gérer tuyau ba bu yàqoo. président Macky Sall ngay gis mu dem foofu ñu naan dañuy commandé ñëpp xam ni tuyau bi forme Y la ak yooyu tout tubaab bi moom fële la toog pour exploitation mais ñun dañu war a gëm suñu bopp même les plaques d'immatriculation des véhicules oto yi hmm. mais léegi tubaab bi ñoo koy def booy liggéeyatuñu ci tubaab bi lañuy jaar pour mën am ay plaques yu ñu yu ñuy confectionné free shop bu aéroport lépp lépp lépp ñu jox ko tubaab yi loolu moo war a deñ te li ci gën a grave loolu xam naa sama domaine la xam naa da nga ne kii dafa bëgg pétrole gis nga destu géeju Sénégal ultra deep offshore soixante cinq mille kilomètres carrés yi des suñu géej soixante cinq mille kilomètres carrés moo desoon suñu géej dégg nga hmm. à part licence yi ñu joxe biir géej yëpp la ca desoon yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp soixante cinq mille kilomètres carrés la moom lañ jox total ci benn contrat kon léegi pétrole bi nekk suñu biir géej France moo koy daggate par mille mètres carrés di di ko jaay parce que moo ko moom ñun 10 pour cent ñu am. 80 est ak heure mondialisation bi est ce que Sénégal mënul lëkkaloo ak loolu tamit pour un peu exploitation bi je veux dire. non c' est à c' est dire euh, euh, domination boobu. Hmm. Euh, c' est une nouvelle forme de colonisation yow nga moom sa yëf tubaab bi ñëw teg ci loxo yow sa président signal ko ko ba noppi di ci di ci di di nangu ñuy fay ci signature décret sax benn 10 milliards 10 millions de dollars 5 milliards la ñu fay ci signature décret Macky Sall boobu. Hmm. te la corruption amul benn contrat de recherche et de partage de production boo xam ne dañ cay fay xaalis bonus de signature sax daganul parce que boobu le code euh, pétrolier de 2019 dugul dugul woon c'était en 2017 mai 2017 euh, ñu fay 10 millions de dollars ci approbation wu Macky Sall par décret loolu lu ñaaw la ñuy fay xaalis ci suñu signature président musul am te amul ci benn contrat te amaatul ci benn contrat te contrat boobu ci lañ joxe suñu des destu géej koogu yépp donc France mu ngi ñëw fii jël suñu tool yi jël suñu suuf si jël suñu lépp ñun dañu war a asseoir suñu souveraineté dañu war a gëm suñu bopp dañu war a foqati li ñu moom téyeel ko suñu bopp. est-ce que souveraineté boobu dina yomb. dina yomb suñu niveau de de koom-koom je veux dire que koom-koom. Mhm. Euh, problème mu njiit la. problème mu njiit la njiit day gëm boppam. Ghana li mu réussir. Ouganda euh, Angola réussir ko. Sénégal mën na ko réussir. c'est-à-dire euh, tubaab bi nga xam ne da nga koy jox benn. titre de propriété xool suñu phosphate bi nekk Mboro nga joxe ay kilomètres carré yoo xam ne gisement la exploitable indéfiniment en profondeur nga jox ko ay indien avant euh, après nga jox ko ay ay ay tubaab ay ay iranien ay léegi indien yee ko yor da ko mës a joxe yow mais boo ko exploité loon sa bopp parce que ki nga koy jox titre minier boobu moo koy permettre muy lever ay fonds en bourse ba développer infrastructure industrielle yéen préconiser li préconiser mooy ñu respecter li constitution bi wax les ressources naturelles appartiennent au peuple kon l'État doit être concessionnaire sur tous les blocs et sur toutes les mines léegi nag concession boobu euh, day def partage de production euh, ki nga xam ne euh, moom lay liggéeyal au lieu mu defal ko contrat de partage de production mu def contrat de service parce que dafa am ñeenti tibu contrat ñun biñ ci mooy léser suñu intérêt ñun contrat de service la ñu waroon opté en matière de gaz et de pétrole. Mm -hmm. pour respecter suñu intérêt parce que boo demee Angola l'Angola est concessionnaire sur tous les blocs. Mhm. te euh, moom ak total foofu 50 pour cent la fa am 49 pour cent sax la fa am Angola moo am 51 pour ful la jooju la Sénégal war am te loolu euh, révision texte rek la code pétrolier ak code minier. ngay réformer wala nga amandé ko soxlu sax bu bees yow diggante ab Wade ak Macky Sall côté boobu yow loo gisee ni kon moo ci war a gën a farlu par rapport ak ñu ñuy jëfanteeg France. Euh, euh, Abdoulaye Wade parce que euh, Abdoulaye Wade wàññi na domination France Abdoulaye Wade indi na coopération multilatérale moom moo indi multilatéralité ci coopération parce que bu njëkk xam naa tu es un peu jeune hmm. mais jamono Abdou Diouf ak Senghor. amul ministre bu sañoon dawal oto bu dul marque française Sotrac mooy Dakar Dem Dikk musuta am ay bus yoo xam ni du Renault Air Afrique boobu lañu amoon compagnie aérienne africaine mhm. France moo leen doon jaay avion ay Caravelle ay Airbus ay DC-10 DC-9 ay avion yooyu lañ doon jënd ci France la doon jaar donc loolu moo fi amoon Abdoulaye Wade bi mu ñëwee ci la ci la ci la ay marque allemande ñëw ak yeneen marque état bi état bi état bi di ko di ko di ko utiliser industrie bi ñu dugal iranien dugal Chine dugal dugal Inde euh, ñu am ay partenaires bilatéraux di ko coopérer ak Brésil ak un peu partout donc euh, euh, loolu président Macky Sall dafa ñëw xaw ko wàññiwaat demoon nañu ba nangu suñu base comme ni ma ni ma démarré ñu delloo leen ko mais Macky Sall moom dafa ñëw jox jox ba ci plaque d'immatriculation beeg lépp lépp lépp mu jox ko tubaab yi. Hmm. ñu dara deseetu leen lépp lépp lépp tubaab yi lañ lañ ko jox léegi.